combat Bombardier ak Balla Gaye jamono ji jàpp leen ne mbir yi tàmbali na gannaaw moom Bombardier ba mu nekkee ca France di waajal li nga xam moom mooy combat MMA pour le 23 octobre bii ñuy dëgmal foofu ca Pologne waaye le lion de Guédiawaye di Balla Gaye numéro 2 jàpp leen ci ay xibaar yu dëggu agsi na tey jile ci suba foofu ca réew France kon moom Balla Gaye le lion de Guédiawaye adversaire Bombardier 7 heures du matin tey ci suba la wàcc foofu ca aéroport Charles de Gaulle bu Paris kon ki ko gàttandu woon foofu ca biir aéroport ba moom mooy Mohamed Ali Ndiaye bi nga xamante ni moo koy accompagner ci préparation am le lion de Guédiawaye di Balla Gaye 2 ma ngay jubali foofu ca INSEPS bi nga xamante ni fa la nekkoon waroon faa dellu sax ngir waajal lii di combat diggante moom ak Bombardier ak yeneen i combat yi nga xamante ni moo nekk ci kanamam diggante moo Gris Bordeaux Eumeu seen ak Boy ñaar 2 kon jàpp ne ñoom ñaar kii di Balla gay ak Bombardier ñoom ñaar war nañu bëre weeru novembre bii ñuy dëgmal gannaaw dat bi nga xamante ni moom kii di Gaston Production jàppaat na ko kon ci ay xibaar Balla Gaye numéro 2 gannaaw bi ñu annoncé woon day delluwaat ci France tey ci suba ci euh, alxames bi la daal di agsi foofu ca aéroport Charles de Gaulle bu Paris bu 7 heures du matin jotee ci suba Mohamed Ali Ndiaye moo ko gàttandu foofu ca aéroport ba kon ma nga naan ciw ca te INSEPS waajal boppam nammaat dooleem diggante moom ak Bombardier